salaamaaleykum mbokk yi ki ñu jàkkaarloo jër ñu koy présenté nag muy soxna Aïda Saliou la grande voyante nekk fi ci parcelle unité 3 yaakaar naa nag tey idali bi wax xam nañ ko muy doom muy léppam tey nañu seeti ko nag war a waxtaan ak moom boobu ba léegi yaakaar naa war nañu waxtaan ak moom lu bëree bari waaye li ma jaaxal mooy depuis 13 heures ba léegi ñu ngi fi bëgg a tourner ak moom mu tëju ci biir nekk ak client yi nekk ñi nga xam ne tey ñooy woote nekk Europe fu nekk di wax ak ñoom macha allah te dañoo fekk macha allah mu gën a xat comme da doon xat saa kon daa mel ni tey dañuy jàkkaarloo moom rek waxtaan ak moom ci actualité mais ba fa avant actualité damay waxtaan ak moom ci li nga xam ne tey xataa ko fekkee yaa Aida Saliou ziar na la. asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum diaspora maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla waaye i idaani sama doom maa lay lay nam moon la lool nag macha allah sénégalais yi namm la macha allah bi nga ñëwee ci sa yaay di la ñaanal gudd fan ak wér waaye damay ñaanal sama doom. Waly Seck yàlla na gudd fan ci daraje rasulullah yal na ko yàlla sàmm ndax man moom laay ubbee moom laay tëjee ndax moom ma defal lu ma kenn defalut moom ma wan lu ma kenn mësta wan ndax moo ma wan Seyduna Muhammad ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ci barke yonent bi bàyyi kook ay waajuram bàyyi kook ay soxnaam ak njabootam di ñaanal réew mi yàlla na yàlla ñëpp am jàmm am salaam tawféex seen yaay ñëw na. waaw i eh, daal leeru màkka gi jeexagul fii ba yi déwén nii laay mel damay belli ni ko xale yi di waxee damay belli waa ndax yonent bi bu nekkee ci xol eh, bu nekkee ci xol nekk ci direct moom saa yoo xëyee ngay am façon façon yëpp nag di façon yi jàmmaa ah, mm-hmm. ak façon yoo xam ne eh, da ngay nekk nit bu extraordinaire parce que sa xol day féex mm-hmm. yonent bi moo mel noonu ci xol yonent bi ci xol mm-hmm. moo dàq lu yàlla bind loolu nag mooy feeñ ci sama ci sama comportement waaw day feeñ. mais moment ñu gis 13h ba léegi ñu fi toog mënuñu la jot yaa ngi ci biir nga génn benn moment génn sa bopp na ma Italie may man tuuti ba 16h ñu doon tourné clients yi woote bi macha allah surtout Europe boobu léegi yaa ngi jël ñi nga xam ne ñoo nekk extérieur tey moment dafa mel ni da nga jógee fële nga xam ne mooy makatoon karam affaire yi gën a bëm. waaw euh, yokk cere dooli ñeex bi ma ñëwee gis naa yokkute. yokkute gis naa cant. Mhm. gis naa te gis naa taw tawféex mm-hmm. di ñaan yàlla na wër àdduna waaye eh, xat gi idaani man damay xat tout le temps mm-hmm. waaye xatin bii ma xat sant naa ci yàlla bu wér a wér a wér parce que wax ñu déglu la sax yombul boole ko nit ñi jox la seeni xol mm-hmm. jox la seeni xalaat jox la seen confiance àdduna wërngal képp diaspora bi fi mu ne trois jours diaspora fi trois jours yëpp trois jours diaspora la mm-hmm. waa diaspora parce que li dugg bari na mm-hmm. ñu ngi may xaar ligne bi saturé na macha allah waaye nag meilleur bi la moo fi ne mm-hmm. la reine de vaillante la king ajaratu king de vaillante kii mooy soxna ki waaw les vaillantes de peuple parce que ma jur centre de peuple yow du ñëw tey waxuñu ak yow comme ñu ngi jóge ci Maodo. Mhm. gis nañ macha allah li nga def ci gis nañ li nga def ci nga xam ne mooy bésu yàlla suñu borom yi bésu Serigne Touba yi màggal nga euh, demul 20 jours sax ñu ñëw li nga xam ne mooy Tiwaawoon nga dem Tiwaawoon nag ah ñu gis la fa def ci teraanga tey lan mooy sa secret yéen soxna euh, yéen euh, Aïda Saliou yi bala ma ñëw ci soxna Aïda Saliou sa turandoo lan mooy seen secret gis nañ li nga def Tiwaawoon. bëgg yàlla. te moom nga def laayeen yi aussi tam. bëgg yàlla. Mhm. bëgg yonent bi. Mhm. bëgg sëriñ Saaliw ndax ginnaaw yàlla bu ma sama ñaari waajur defee ay jullit àqan ma ñëw doon taalibi sëriñ Saaliw taalibi sëriñ Saaliw amul xaj amul seen taalibi sëriñ Saaliw dafay am dafay am benn day day day day day vite fait vite mi ngi tàmbalee ñun raxas bool sax bu ñu koy def dañuy vite bu ñuy jëf dañuy vite bu nuy sañse dañuy vite fait bu ñuy bernde dañuy vite waaw kon man su taalibe sëriñ Saliou yi vite fait ñun vite parce que ci dundin bi la ci yarin bi la ci éducation bi la mais ci jëmm gi nga xam ne moom lañu bëgg doyloo ko sëñ Saliou bu wax ji baree du moom waaye bu jëf ji baree sëñ bee kon loolu bu ñu ko jëlee ci moom rek tuuti rek mënuñu dajal lépp ndax sëñ bi géej la da ngay tànk xajal keneen tànk xajal keneen root te du tax mu jeex waaye ci li mu suukar ci sunuy café ñun matale nañu ne bis bu ñëw am nañ ci wàll te bu nu ci wàllee ba dem ca ba ñëw dina am mucc ayib dina am différent loolu mooy secret Serigne Saliou ci ñun ci ñun ayda yi. ci ñun ayda yi toujours damay gis comme lu ñu waxoon mais bés bu ñëwee maanaam euh, nit dañ koy wax ci commentaire yi la grande voyante fan la jëlee xaalis bi muy frais li nga xam ne mooy euh, bëgg su yàlla suñu borom beeg ak màggal tubaab beeg xaalis bi yàlla xam nga kan la àndalut ku jéemul dara waaye lu waay jéem ci jaamam ñi suñ borom duy la te ki ma àndal mooy Serigne Saliou mooy première mandé ba tax na man jooyu ma dara parce que clients yi ma yàlla booleel dañoo jàpp ci sama loxo te biñ ma jàppee dañ maa gunge te biñ ma gungee damaa yegg loolu la demee. ak taalibe borom jàppandal ak njuróon yi. ndeysaan macha allah ñu xam ne social macha allah yaakaar naa loolu bu ñu ko waxee rek waxit la waaye yow social nga xam 100 pour cent yow booy ne sax da ngay def social ñun xam nañ ci dara askan wi xam nañ dara baax a baax mais yaay booy dama la nuyoo loolu rek mais tey ñëw boo xam ne yaakaar naa mooy lëmbee li nga xam ne mooy Sénégal ak àdduna muy combat Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Boy Niang ah yow nag ñu xame la am na loo ci wax te yow yaakaar naa doo daawoo dem vaar ñu xame la leen Eumeu Sène ñëw na fii ci combat yaakaar naa am nu te dëkk Pikine te ñu gis bàkki démb nga dugg benn vidéo nga ne Balla day daan ki nga xam ne mooy Boy Niang te ah Eumeu Sène Pikine la dëkk te Balla Gaye yëppul lan moo wax nga wax nga tax nga wax loolu. non waxuma ne mooy daan. Ah, parce que dafa am lu may faral di wax. Mm-hmm. maay yaayu grand yi. maay yaayu jeune fille yi. mais maay raqu paa yi. te maay rakku meer yi loolu tax na réew mi fi laa bokk fi laa amee bulletin de pikin laa juddoo mais Géejawaay Parcelles laa dëkk mhm. fi laa amee njaboot mhm. te yàlla dafa dogal fi ma toll ci réew mi waratumaa wax lu nu may xeebee ah, waratumaa wax lu nu may cofe mhm. kilifa diina gi toog di seetaan soxna Aïda Saliou daf ma bëgg ba sama vidéo kilifa gi daf koy xaar pour recevoir ko pour seetaan ko kon war naa mesurer samay parole ci yenn yi mm-hmm. ba duma def lu nu ma xeebee bokk ci réew nag leen lay xeebee bokk ci naana mm-hmm. réew mi war a toll ñaari doomi réew di bëree mm-hmm. Balla Gaye doomi senegal la Balla Gaye doomi Géejawaay la waaye booy Niang doomu doomu pikin la Pikine ak Géejawaay cent francs moo koy paas boo bëttee mbedd yi tout près da ngay jege <laughs> bu nu amee naqar dañu koy bokk daje fa bu nu amee bànneex dañu fay bokku daje mm-hmm. kon jombale naa sama bopp mm-hmm. xool Balla Gaye ba mu neex ma ma ni Balla Gaye mooy daan Boy Niang te Boy Niang ami mbokk ami xarit ami soppe waruma xool Boy Niang ba mu neex ma ma ni Boy Niang mooy daan Balla Gaye su ma ko xamee dama koy xam lu xew ci réew mi xam naa ko combat bu ma seet dama koy xam bu jour bëre ba jotee man boo xam ne ñëpp toog nañu xalaat yëpp dem nanu nit ñi concentré rek kaw a des wure wa dem na këng waxi mag dem na ndenkaane mbëri summeeku nanu kenn talatul di xool lu internet wax lu dul da ngay xool li la télé bi di wax man damay stati mbër mi war a daan mbër mi war a daan dama koy stati su ma estatee samay doom uh-huh. samay xarit samay soppe daa di jël nag bu doon ne kuy war a cotiser nga wala kuy war a teg dangay ngay bàyyi loolu xam ne lii lii moo fi ne loolu njunju day doy boromi xel ndax mag mu baax noonu lay doxee cim réew waaye jombale naa fi ma toll ci réew mi mm-hmm. ni ma bàyyee xel mm-hmm. ni nu ma sooraale ni nu may seetaane ak ni ma soppee ay soppee Balla gay sopp ma Balla gay di sama dëkkandoo ay soppee booy ñaar bëgg ma ma juddoo Pikin mm-hmm. man du sama cër may taxaw ci internet bi dara jaralu ma ko ci àdduna bu loolee day tax ñaari mbër yi di ñëw ci man kenn du ñëw naan taxaw naan diw mooy daan di tas yaakaaru ñu naroon a jënd bii billet di tas yaakaaru seen i mbokk seeni xarit te ñëpp miin nanu lu ma wax ci réew mi mu am kon su ma waxee mbër mi mooy daan mbër mi laay njëkk a yàqal ah, mën naa koo tee añ mën naa koo tee reer mën naa dem ba ca combat ba waroon a génne saraxu fukk génne juróom ne soxnaay daw wax na ko kon lu may wax damay wax loo xam ne bu nu ko non non non non foofu damaa war a defar waaye waratuma yàq mm-hmm. réew mi damaa war a boole mm-hmm. damaa war a taqale mm-hmm. maa war a defar ba mu baax waaye warumaa def loo xam ne ku ko dégg na accam wala xaar ma ci doon noonu damaa ragal defet damaa ragal gàcce taalibe Sëriñ Saaliw bi instant yi nii la waaye ci jàmm lay njëkk ci jàmm lay mujj lii sama wareef rek mhm. xoolaguma loolu nag mhm. dinaa ci wax ci yeneen i mais tey fi réew mi toll lii sama wareef ci réew mi mooy bu bëri yi amee ni may defee ci état bi laay defee xam nga état yi dama naan maire yu bari dañ leen di raxas bu doon mbër yu bari la dama naan leen bëri yi war a dëkke fii bëri Modou loo amaa Baldé dama ne du am deux mille vingt deux mille vingt ñu dem deux mille vingt et ma leen kenn du ko ci tëgg ñu dem deux mille vingt deux ma ni bëri bii tas koo gën ndax du bëri mm-hmm. te yaakaar naa ci tas la mujj bu lee loolu la danaa ca wax waaye ki yey daan ah maa mag loolu. yaa ngi eh, jamono ci li nga xam ne mooy ministère yeeg affaire yooyu ni ñu war a raxasaat automatiquement noonu la demee ba ci nga xam ne tey mooy kan Matar Ba ministre euh, des am na koo xam ne tey euh, sport lañ nekk am na koo xam ne tey instant moo moo ko wut toogu fi tey te xam ne mooy coupe du monde tey say doom comme ni nga Wally Seck nekk sa doom Sadio Mané sa doom keneen ak keneen sa doom tey lan nga gis ci coupe du monde ak lan nga gis instant yi nii ci li nga xam ne mooy ministre bi toog instant yi xalaat ne mu ne tekk nag defagul dara mm-hmm. mais lan nga xalaat ci moom euh, def ay saraxam parce Matar Ba bi ma leen di wax ne nen day wàcc mhm. boobu kenn xalaatu koo wax te yaakaar bi mu egsee jaaxal nañu bari te mbette la dikkee ci Sénégal yi mhm. euh, ba tax na footballu senegal kooku amee ñi ma ci war a waxal maa ngi ciy wax ak moom kooku amee ak ajaratu soxna Aïda Saliou la king ni ma defoon ba ba ba bëri ba match bi egg fi mu egg mhm. chaque jour je suis ak sénégalais yi fii la xewee ci sama réew. sénégalais yi ak ñoom maak ñoom ba léegi je suis là waaw. te liñ ci war a liggéeyaat ñi ngi ciy war a dem ak yeneen loolu incha allah après dinañ ci après loolu dinañ ci wax waaw lu ne mën lu mën naa ne lu ne mën naa ne ma ne lu ne lu ne mun naa nekk ak king de vaillante ñooy leen maa ngi ci biir équipe nationale bi ngi eh, maa ngi liggéey ak sama Sénégal sama réew maa ngi liggéey ak Sénégal sama réew. mais liggéey kenn du ko yuri kenn du yuri poset ba ubbi ko ba ni ŋaal la falaayam falaayam na xel yi dal nañu ànd ñun ñëpp ñu ñaan xam ne ñuy doom ñoo dëgmal mbir na nanu ko defee ci Coupe d'Afrique nu ko àndewaat ànd ba rafetoon na kon nan ko àndaatee noonu te xam ne lépp Sénégal la. Sénégal Sénégal Sénégal barki démb barki démb def naa ko ak waa Import waxoon naa leen ne match bi muy football maa ngi defoon vidéo bi yaakaar naa dimanche ne woon leen dina fi football mardi bu footballee dina fa def bii bu àdduna bi yëpp di coow vidéo boobu mi ngi Import te yaakaar naa bi bi xale yi nee nañ ma am na du lépp du sama njàmbaar liggéey la rek boo xam ne suñ borom moo ko natt ci sama jëmm ji ma judduwaale ko ci réew mi muy avantage su yi kon sant la rek du man de yàlla la beneen bi ci des mooy score match fii ci réew mi kenn rek a ko fi joxe muy soxna Aida moom Serigne Saliou man maa laan la demal vaar maay dem télévision ni ubbi ligne bi lii man la ko yàlla jagleel ku mën defal ku mën defal waa xam nga man bi ma juddoo nag ba def huit ans laa daan taxaw diggante ànd juboo sancaan benn baraak taxaw ci buntu stade yi di def sama ñetti bant ba léegi sama këriñ wax la lii tey am na équipe yoo xam maa ngi liggéey ak ñoom am na benn équipe boo xam ne naa la wan mayo yooyu mayo yi rek lañ may yónnee ma fanaanoo ko su ma xëyee mayo ku ko sol bu dul trois personnes di ñëppay dugal bii ñooy gagné mayo yooyu mënut koo sol jàkkaarloo kenn ci biir stade te dugaloo. naa la wan léegi bu ma paree naa la wan vidéo bi nga xamante ni nga xool. nga xool équipe boobu nga laaj ko fi mu ne nii nawetaani mi ngi ci ñaata ay match tam mi ngi ci ñaata ay but waaw loolu yëpp nag ndimbalu yàlla la parce que yàlla mooy xar jaamam ñun bi ñuy juddu suñu borom kenn da ngay def écho pour xam doom bu góor wal doom bu jigéen quant que modification boobu suñu borom mën def ñi ñuy ay góor def ñi ay ñu jigéen def ñi ñu njool def ñi ñu gàtt pour pourquoi pas yàlla moo ñaalewul ñun bu ñuy wàcc àdduna ak li mu ñu tax a ñaaleel ñu indi ko taxañ bi nag cornet bi bu yegsee ba ci Sénégal àdduna wërngal képp mu wàcce ñu fi def ñu ay doomi réew mi li munu indaaleel il faut que ñu wane ko looloo waral soxna Aida Saliou nekk kii mu doon te ki ma yaakaar ba tey ba tey ci subak tey gii jóge nekku fi làqu na yàggu na mhm. tuuti yàggul mais li jébbalu ci ginnaaw Serigne Saliou mhm. ñaata doomu aadama ñoo jébbalu ci ginnaaw Serigne Saliou bi mu fi nekkatul ñaata génération moo fi am ñaata ndawi daara yi Serigne Saliou a fi am ñaata groupement lañ fi formé waat ñaata doomu aadama dem tab toog ci xabru Serigne Saliou ñaan ne ko man jébbalu naa ci yow doon naa murit àqan kon bu ñu xoolee loolu xam ne nit soo fi nekkee munoo fee jóge te ki ñu dimbali ak ki ñu jàppale ak ki ma yaakaar daa mën lu ne ci waayam moo ma dimbali moo ma dimbali mën na kanama mën na ginnaawam li mu def ci ginnaawam bi mu toogee sax am na loo xam ne ndeysaan moom moom moom moom daal kenn xamul lu mu doon daal kenn xamul lu mu doon mbàkkee ñaan nañu ko yàlla fayal yaay boo ñu dem ci beneen actualité rek tey macha allah comme li nga wax rek moom doom sa lépp tey di euh, le centre du peuple saa su ne comme ni ma koy waxee rek le king. doom ju sedd sama xol macha allah euh, musique sénégalaise macha allah muy Wally Ballago Seck tey nag yaakaar naa toogoon na da waxoon toogoon na 3 mois du tëgg fi nga xam ne mooy Sénégal euh, le 22 ñu sargal Papa Thione muy loo xam ne fële ca King Fahd Palace en tant que yow yaakaar naa nan nga ko dundee ak nan nga war a taxawaay taxawaay boobu. ah fas fas yéene fas yéene papa coon loo xam ne waroon na ma idaani waroon na la waroon na kee waroon na kële waroon na grand waroon na petit waroon na maire ñu dund tey ba woote ne papa coon la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy sargal kin faak place ah kooku dama yaakaar ni sénégalais yi moment bii may waxee ak yow nga xam ni képp koo xam ne doomu Sénégal nga ak doomu international yow sa xel mi ngi doon xaar ban bis mooy bisu Papa kon bu bis mu yeggee génne génne yu bees yi ñawlu ji yu bees yi fas yéene def grand mbubb yi ba mu jub def mbubb yi ba mu baax la ma soo kol yi ku mën a teel a dem teelal a dem man de lu waay mën ci bis boobu na ko def ki ñuy sargal mooy Sénégal ki ñuy sargal ki ñuy sargal mooy les meilleurs ki ñuy sargal mooy papa yu ndaw ñi mooy nijaayu xale yi mooy góoru jigéen ñi ki ñuy sargal muy ku liggéey ci liggéeyam révérence boo xamante ne ni tey moo nu fi bàyyil mémoire boo xamante ne ni ku nangu ku mu neex ak ku mu neexul moo fi ba tey li bégal mag ñi bégal gone yi dugg ci xol yi def fi lu baax wax fi lu baax social ba àdduna bi yëpp xam ne social na produit Papa Thione moo toog tey ci réew mi kenn ku ne kenn ku ne yëg nga sa bopp ci Waly Ballago à a cause de Diaga dama ne ku niwul ku niwul ku niwul yàlla ak diw doo ne yàlla ak ku santul nit doo sant yàlla Papa Thione nekkatu fi de waaye sooy tegee son Papa Thione tey jàppal ne bi nga xëy soo ba léegi dund la Papa Thione doon wax boo yeewoo sa néeg tout le moment tous les heures nga déglu Papa nga mel ni yaa ngi dund Papa tey kooku du fay ba abadan daay man kon ay référence yu baax ku mustaway ba daraaye ku mustaway ba jéggi yoon wi ku mustaway ba wax lu lu lu lu yàq doomam ñëw taxawal fii lii mu fi taxawal yàlla na sut baayam aw fan Wally yàlla na sut baayam ay fan yàlla na duble ay fani baayam doublé ko ak jàmm duble ko ak wér duble ko ak kattan duble ko yàlla dëbb ko kattan goo xam ne Wally yàlla na yàlla samp ay tànkam Wally yàlla na ko yàlla teral Wally yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla jàppale ci darajay rasulullah Wally daa teral ku doy waar Wally daa teral daa teral Wally li mu teral nañ dem feneen bu dul loolu émission bi damay damay yàq émission sama xol day tooy barke Serigne Salim. ñu dellu benn ak tey euh, muy euh, li nga xam ne tey moo faral di am Sénégal euh, yàqante bi weerante bi audio yeeg affaire yooyu audio bi nga xam ne mooy diggante Cheikh Bara Ndiaye ak ki xam ne moo jëm ci Ousmane Sonko muy audio boo xam ne vraiment ñaaw ñu ciy ciy laaj ñu boobu ci ci yi ci wax lu nekk tey en yow lan nga gis ci audio tey wax ñaaw ci ci yi. waa xam nga dañoo nekk ci réew moo xam ne technologie bi dafa dox su ñu bëggee modifier Soxna Aida léegi yàqu ko ci ku am ku ak maanaam koo noonu bu taxawoon di xaar ku yàq Soxna Aida bu déglee léegi benn noonu Soxna Aida am lu mu def Soxna Aida léegi mais moom loolu rek lay xaar moom dégluwu ci ndax Soxna da la wala du Soxna Aida li mu ci déglu rek mooy yàlla na tombeek mu doon Soxna Aida wala mu xaw a nuroog moom gis nga bët yàlla ba mu nu koy bindal ndokk ba mu nu ko réglelee ba mu defal nu ko wiri wiri te munoo xool ci ginnaaw ku yor bëti kanam munoo xool munoo teg bëti ci sa ginnaaw te boo gestuwul doo xool ci ginnaaw kon boog nañu doxal ki ne ci yoon wi na tàllal te bàyyi xeer gis nga képp ku la sànni xeeru ginnaaw nga for di ko delloo yow doo yegg fi nga jëm baa mën ngaa faqastalu vision bi foofu la toll ci réew bi dañoo nekk ci réew moo xam ne fi nu toll nii tembe mooy da mel ni Wally Seck sama doom ci yor sa juróom ñaari yu muut saa yoo ci mais dara woo ko ne ko jàllaleel ma muut ndax ma am muut waaw muut mooy yoon bi day jàllale bag di jàllale oto lépp lay jàllale waaw dangay dem ca waal yi mu jox la ci muut gi bu la joxee ci muut gi da nga téye sa muut fu la neex jëm ak moom loolu rek lay dimbali gis nga fi mu ne nii bu dee ku la sànni xeer nga delloo ko ko lu waaye wax fi nga wax Ousmane Sonko Baara Ndiaye Ousmane sonk keneen ak keneen ak keneen fi mu ne nii lu la tax bëgg nañ koo yàq ci réew moom lañ toll fii lu fi ratax nekk laa laalo dinañ ut kilo suuf ne ko ca pëy pour mu ñagas nanguluñu kenn amul koo xam ne ñu ngi lay nangul ci réew mi fi réew mi toll nanguluñu kenn nanguluñu kenn sutumaak yàlla boo baax boo baaxee rek am nga problème boo baaxee rek yow am nga problème yow na la wóor na ñu ngi lay dëkk dëkkal ñu ngi lay pax-paxal ñu ngi lay kàmb kàmbal Cheikh Bara Ndiaye nag yàlla dafa dogal man ak moom xamante wuñ waaye xam naa ko ndax daf maa defal taraanga ci bis bi ma ko soxlaa ndax Cheikh Baara daa bàyyi ba ma dem màkk ba ñëw ma woo ko téléphone ut numéro jël ko sama benn doom woo ko ni ko damaa jógee màkka man bis boobu rek laa amoon nag Cheikh Baara ñëw fi teew fi def émission ak 2S ba pare jubal si si man jox ma xaalis bu takku ak ñëw jëmmal ma jëmmam ci loolu mënu ma koo fay. jëf daa mën a rëy loolu bis ma demee ziyaara ji bayti moom ak sëriñ Fàllu Loo gayndel du ma leen yam lu yàlla bind ak seex Isaa Njaay borom jaas ci seen ñett ñetti ñooñu waaye ñuy ñetti reference ci réew mi seex Baara Njaay ca la mu nekk doo ko ci dégg ca lu ñaaw kenn yabu ko seex Baara Njaay laa wax de man maa ko wax seex Baara Njaay dogguma ko ci luñ koy joxoñe baaraamu tuuma mu metti sama xol parce que lan ma jëfal laa wax munoon na maa bañ a ñëwal de waaye dafa ñëw ci sama bis Cheikh Issa Ndiaye ci aéroport la ma fekk ànd koog man jëf yooyu laa bëgg yu baax xeetu yu baax yooyu teg ci sëñ Fallou gayndeel moom daf maa defali jëf yoo xam ne mënatuma koo fay mënatuma koo dabu sama doom sama xarit sama mbokku taalibe sëñ Fallou gayndeel sëñ Fallou damay dem Makka. mu ñëw njëkk ci man ci taraanga ak ñaanal ma saa yu ma amee naqar sama kër su ma gestoo gis sëñ Fallou Lo mu gaare otoom sëñ Fallou Lo su ma ko nee maa ngi ñëw sax mun ma bul ñëw maay ñëw dina ma ñaanal ñëw sama kër tàllal samay loxo ñaanal ma ñaan gu mu tibbee ci xolam sëñ Fallou Lo dina ma jox alalam sëñ Fallou Lo dina ma jàppale def na ma jigéen def ma rakk def ma yaay yàlla na yàlla guddal fanam te xoola ku ñàkk jot la daaray rek a ko ñor barke Seydina Mouhamed kooku doo dégg ci moom lu du moo jëf lu baax waaye doo dégg ci moom leneen man ay samay xam parce que sama deret moo bëgg loolu taalibi laa comment ñu jël ci moo xew fële ci Diourbel euh, euh, ku am société bu yóbboo nga jóg ci tey nag émission bi li ko waral dëgg dëgg dëgg mooy képp koo xam yor nga entreprise muy lu ndaw booy defar sachet mbuusu juróom sax jógal ci sa entreprise balaa bi bi muy ñëw ci oto yi la xirtaloon boppam ci tali taw bii ñëw bari na mu raxas mm-hmm. taw gàmmu gi bari na lu mu raxas waaw naa mu Muhammad la Masaalikul Jinaan mën nañuy def la ñuy def Touba di def la ñuy def Tiwaawan di def la ñuy def Kaolack di def la ñuy def te yàlla du am lu mu ñëwee ci këpp ci tali bi tali bi raxas nañ ko tali bi raxas nañ ko dina wàññeeku waaye ku yor société ngay branché ñaari fil muy jël ay vote jógal ci sa usine yaw eh, boo jógul ci sa usine bul xeeb sa société soo mënee branché compteur rek muy jaarale fil di xëcc lu am doole jógal ci sa société sëpp nag la ko bënn nga ci biir ku ma woo ma wax la luy sa sarax képp ko yor société usine société bu ndaw ngay branché ci courant muy jël ay vote jógal ci sa bopp ah, man maa la wax lii man lakk gi ku am sa alal te bëgg koo sàmm te moom ko jóg ci tàkk-tàkk jëf-jëf nanu maa woo ma wax leen sarax yi du ma waxantu de dem leen vaar nag balaa kenn dugg ci samay mbir demal vaar yëndul samay waxi démb indi ko waxi tey waxantuwuma de pour charger non fees waaye ku ñëw ma dimbali la ku ñëw ma dimbali la clients yi leen rek laa leen di ñaan man sama yëf ku yàkkamti bokkoo day xat saa yu ma woy dinaa la raccroché nag benn numéro laa yor musuma ko changé bu dee pommade ak butéel sama biir kër laa koy jaayee dew ma fen uti ma bitik lu lamb la ñuy stoppé man stoppé wu damay liggéey mu jeex ma ne la xaaral nga def sa commande. na ay ah, ah, ah, kenn waxatu ko la grande vaillante de peuple. ñu fi mu ne nii butéel bi commentaire bu ndaw laa ci def parce que ne dama ko xaw a manqué maa ngi defar gis nga tey li fi rang ci ni te amuñu fi mu ne fii ak deux jours trois jours dina am dama mm-hmm. bëggumaa def publicité bi nit ñi di daw si di ñëw te duñ ko am moo tax fi ne. commande yi ma jëloon ñoo ñu laay livré seeni bagage ak GP yooyu waaw te bëgguma nit paas ma ñëw sama kër te amoo pomaat yi bu góor am na bu jigéen am na tey laay doog a pare waaw mi ngi nii jigéen ñi dënn weer yooyu ku ko bëgg seet si ma fi maa koy jaay yow mi tuuti ne duguj boo naanee sama li bi toj na toj na toj na kii wër na toj na fu ne kii toj na néeg bu ne toj na fépp fii toj na fépp yow miy jigéen am gémmañ boo xam ne dafay am odeur oh. ngay déranger koo bëgg a waxtaan te xam nga waxtaan léegi dafa jafe ndax kuy wax ak nit ba nga koo déey te léegi déey dafa manqué ndax koo déey mu ne nii yow mi koy def neexu la ki ki ki la mënut a supporter neexu ko na xel yi dañoo gaaw a teey boo ñëwee ma jaay am naa ay butéelam mu raxas ko ci sa biir nga dem ko toilette mu set ndax liy xeeñ ci sa butit yi lay jaar di wër di yéeg ah, udd non non ñu dàq boros gën a silwise a socc dàq yëy goowe ah, ñoo gaaw am odeur ñi gën a set nag la dal maa la wax li day dal góor dal jigéen ñu set lay dal ñu set ñu silwise ñu am talent ñooñu lay dal lii tax na léegi noppi gi bari muut muut taay koo gis rek mu ne moot wala muy audio affaire bi la de lii gilli moo waral muut bari muut hmm? réew mi bu nu xefee dañu koy gerte caaf mbaa nu maafe ko mbaa nu sulluxu mbalax ko du nu ko nangu nag réew mi bu nu xefee danu koy maafe mbaa ñu sulux mbalax ko te lii ma gis ngelaw lii ngelaw lu am tuuti poussière dina jib ngelaw ngelaw dina jëlti jëlti ngelaw ngelaw ngelaw dina jóg ngelaw loo xam ne bu jógee ba pare siburu day bëri waanent day bëri ah day bëri siburu gémmañ gu lewe tànk yu bañ nanu jóg sarax rek a koy téye indaale la la mu indaale bu pare dina bàyyi ci senegal feebar boo xam ne dinañ ko tudd léegi bala muy yàgg feebar bu doy waar. boo xam ne dina doy waar mi ngi ñëw de mi ngi ñëw. mi ngi ñëw mi ngi ñëw mi ngi jóge ci sow bi mi ngi ñëw. mi ngi ñëw ngelaw li dafa am lu mu àndal ah. dama ku am doom jóg ci feebaru parental yi xale yu ndaw yi seen biir yi di daw seen biir yi di funki ñuy dem toilette lu bari seen biir yi di daw dina dikk réew maa ngi yëngu de réew maa ngi yëngu nag maa ngi waxoon naa ko fii jamono dem leen vaar ba salaam. non ñaanal ñëpp yal yàlla def ci réew mi jàmm yàlla muccal ñëpp waaye réew mi ñu jëm dugub bari na de. dugub waaw de.